بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم صلاة وسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد الإمام المهدي وعلى آله وقل فاهيه منكم الخليفة المجدد ونور زمانه والشمس زمانه وصاحب زمانه باي سيدي جولاي ابن سيدنا مجون ابن إمام الله عليه السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi دي نيو دي di leen masawu دي di leen ndokkeel ci weer دي جيخ jeex ويرو رجب rajab waaye di leen ndokkeel it ci weer wi di dugg si muy weeru Shahban di am mbégte nag tey waxtaan ak yéen si lenn li nga xamante ne mooy historique gu célébration de l' appel de Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam waaw defe naa tey euh, histoire boobu histoire création appel bi dinañ si sawar a wax dans la mesure u dañ si def ay gëstu si at yi weesu at yi yëpp si loolu la ñu nekkoon di gëstu ngir amoon projet waroon bindaat biographie wu Baye Seydi Thiaw mu ñetteelu xalifab Seydina Limaam alayhi salaatu si sunu gëstu yooyu nag am na lu bëri si ay recoupement yu ñu def si information yu ñu jot ba am li nga xamante ne mooy version wu tey création appel boobu defe naa dañu wax ne si atum 1981 si la Baye Serigne Thiaw toog ak ay euh, wéttalam bu ma nee wéttalam nag mooy ñi xamante ne ay xaritam la ñu woon doon ay àndandoowam xam ne lu ëpp si jotaayam ñoom ñoo fa daan nekk ndox moom mën naa lim ku melni ni sunu mam Baye Mbaw job sa Cambérène wala sunu mam Baye jebel Mbeng sa sa sa yof dagudan wala ku melni sunu mam ibrahim sile fi ci yof Ngaparu mën naa si sunu ndijay Baye Mbay Sarr doonoon ki maxi setu sayidina ma joni ñom la fekkon ci jotaay bobu donc ñu ne Baye Seydi ciow dafa tok comme moom dafa defon du won nit ku bëri ay wax souvent bu daan tok ci jotaayam nit ñi ko wër mëna ñu tok di waxtaan mais mom mu ngi ci kurusam wala mu ngi ci ay téréem di xol yalla def bi mu toggé ba ben jamono mu daal di ubbi ben téré bu mu yoron téré alquran dal di ci génné ben kayit dal di dagg waxtaanu ñi ko wër ne len sama mam day wooteem mbob mu wote won si premier chahban bes bu ñëk si wéru chahban si atum 1301 si ginnaw gàddaay gi mu ñu len fi ak nangami wér ci lay mat téméri at nonu ku ñuy wax Baye Mbow Diop doonoon xaritam ñoom ñaar ay xarit yu yàgg lañ ñoom màggandoo ak lépp doonoon ñu miinante itam daan ne ko waa si sang bi yow loo namm si loolu yow mu ne ko dama ko bëgg màggal ngir àdduna gépp xam sama maam Limaamul Mahdi xam itam la mu woote noonu Baye Mbow ne ko waaw sang bi yow barki dee mboo njaay rek bi ñuy màggal korite gi gis nga ne pour cotisation yi yemb rek jafe woon na xalaatoo ne tey boo fi indiwaatee leneen lu ñu war a màggal dina dina dina doon beneen coono daal di koy tontu ne ko eh, sa nañu miinante woon rek nekk comme xam-xam yow sa xam-xam si sa làmmiñ la yem loolu nag tooñante la gu doxoon seen diggante mu ne ko sa xam-xam sa làmmiñ la yem eh, bu bés baa di nga xam ne man sëy naa bu soxlaa ma miraas sama bopp dinaa miraas sama bopp lépp lu ma am dinaa ko jaay ngir màggal bés boobu waaye bu bu soxlaa itam ma woo sama taalibe imaam yi nga xam te ne sama taalibe jinne imaam yi si biir géej dinaa leen woo ñu génn si sama teenab mbaam bi urus ak xaalis ma soppi ko alal def ko si ngir financer loolu may màggal muy sama wooteb maam boobu noonu Baye Mbow daal di ci dolliwaat ne ko waaw sang bi xalaatoo ne yow tey sa maam korité la fi bàyyi xalaatoo ne loolu ngay màggal mën na fay korité mu ne ko korité du sama mbir sama mbiru maam la moom téewal na ko boppam lii nag sama mbir la te man dinaa ko téewal sama bopp loolu bi mu ko waxee defe naa sa kàddu yee jeexee jataay ba it fa la jaare après tas ñuy dem ay jamono di dem di dem ba nit ñi fàtte sax la mu leen waxoon ñu demaat ba mu des maanaam ay semaine mu daal di leen waxaat ne leen si fa weer yi la ñu weesu day waxoon naa leen ne sama maam woote boobu mu woote woon day sa 1883 ren lay am téeméeri at te dama ko fas yéenee màggal ñu ne ko waaw mu ne léegi nag li ci des bëreetul ay semaine ci des mu bëggoon si la waxee secrétaire am euh, secrétaire particulier muy El Hadj Sinaay Sala Diop ne dama bëggoon nga bindal ma ay bataaxal ñu jox ko mbooleem ñu yor ndombi tànk yi muy tey ñi yor le pouvoir euh, spirituel di kilifa diine yi ak ñi yor la pouvoir temporel muy njiitu réew mi ak chaîne de commandement bi topp si ginnaawam muy ministre euh, premier ministre di ministre de l'intérieur gouverneur ak ñi sa topp ak services yi affiliés jëm si ñoom. bi ñu defee loolu itam yebal na ay lettres yónnee nekk si mbooleem kilifa diine yi mu bokkal jamono ngir ñu waajal appel boobu mu doon màggal. C'est le Yalla dogal Kérok, c'est le 5 juin 1981 mu tombé ak le centenaire de l'appel muy téméri ati yi baylay, ginnaw baylay ginnaaw ndax mo tombé ak 1401 baylay 1301 ce premier Chahban la woote donc date boobu Baye Satio japp mu tombé woon si weeru Chahban si atum 1401 mu tombé si atum Nasaran 5 juin 1981 c'est le Baye ci Thiaw njëkk a magal appel muy tay cérémonie bi nga xamante tey damay wax ne bu fekkee dem na ba jamono wala àddina ñu dem ba xam Seydina Limam wala ñu xam sax tuuti si moom si appel boobu la yàlla jaarale mission boobu wesaaru ba nit ñi mën see jot donc tey nag ñu toll si jamono boo xamante ne tey dañu am natt bu daanu sunu kaw natt bi nag du dara lu balaa boo xamante ne yàlla rabbul alamin moo ko wàccee si kaw jaam ñi muy pandémie bii di pandémie coronavirus muy feebar boo xamante ne ba si jamono bii ñuy waxtaan Yalla defagul ci jamono ñu trouver tay solution yu ci mëna muccël muccal Yalla yi tay bokk na ci li nga xamantene tay moy moyen de prévention yu ñu mëna def ngir mucc ci moy ñu moytu lepp luy xétu dajalo état du Sénégal waxtaan ak spécialistes yi ci réew mi ci walu science ak médecine walu immunologie peut-être euh, euh parasitologie ak bi ñu waxtaanee ñu gis ni que. il faut que ñu moytu lepp luy xeetu dajalo lepp luy xeetu rassemblement nañ ko moytu tay famille bi waxtaan aussi ci seen biir ci kaddu ki nga xamantene tay moy porte parole moy porte parole kër gi muy sunu mam Seydi Mouhamadul Amin mu jotal jamono ne len kat serigne bi kat amna ñu ndigalam muy bi ngir appel bi du ñu ne lañ koy acc du ñu ne lañ koy pousse du ñu dañ koy annuler waye kenn baña ñew ci bërepp yi ñu ko daan di fa lu melni wala Ngor wala Yoff mu ne na ku nekk toog sa keur ak sa njabot ngeen feete ko foofu ci seen keur ndax appel bi du won dara magal wote màggal wooteeb Seydina magal wote wooteeb Seydina Limaamu nak du forcément dañu wara dajalo ndax ku ne man nga tok sa keur nga magal lolu ak sa njabot nga ñaanal Seydina Limaamu nga tuub wat ci yalla nga tudde yalla ndax baye lay ali sallallahu alayhi woon na situation bi ci jamonoom daf ne won dañu dem ba jamono yalla dina wacce ay bala yu bëri ci jamono ci ñoni jamono dina wàccee ay ay ay ay ay ay xeetu nattu yu ne lu mel ni ay guerre lu mel ni ay épidémie waaye lu mu ne dee dina bëri si ndaw ñi demoon na ba wax sax ne dina dem ba jamono ñëmu dëj kese dina doy dund si jàmm bi te defe naa ne tey signes yooyu feeñ na ndax tey doo toog bés te déggoo ku ñu tàggee lépp lu mu digg lu mu ñu digaloon diggoon nag moom Seydina Ali moomu yàlla def na tey jot nañ si gis nañ ko waaye moom comme moom mission moo doon indil solution waa axiru zaman li mu indil solution lenn la daf ne boo ba tollu foofu nag na ngeen bëril loo leen tuddee yàlla waaye na ngeen di bëril loo leen di tuub di dellu si yàlla ndax yàlla moo ko njëkk a wax yàlla moo ne yu inna allaha yuhibbu tawaabiina wa yuhibbul mutataqirin yàlla day ku bëgg kuy tuub di jëm si moom la waaye ku bëgg ku set la itam donc bàyyi laa ne boobaa na ñu bëri lu ñu tuddee yàlla na ñu bëri lu ñuy tuub di jëm si yàlla na ñu bëri lu ñuy julli si yonentaam boobu waaye nee na ñu bëri lu ñuy saraxe kon defe naa ne yooyu yëpp bàyyi laay santaane mën nañu toog suñu biiri kër ku si na nga def ko sa biir kër te doo dajaloo ak kenn doo jaxasoo ak kenn luy yokk risque de contamination ci mbir mi xam ne moo fi euh, dal tey muy coronavirus bi donc ñuy woo nag sunu mbokki taalibe yépp si ñu tëngu si ndigal loolu confinement bi nga xam ne état décrété décrété wuñu ko parce que daf leen neex dañ ko décrété parce que tey situation bi moo laaj loolu moo laaj ku si ne nga sàmm te yàlla defe naa ne boo koy ñaan itam da ngay fexe sabbal ba pare si mbir mii yàlla kese moo si mucc moo si mën a muccal jaam ñi man loolu laa gëm yàlla kese mi nga xamante ne moom mooy nangu nu ñaan yi mom mo meuna muccel jamm ñi mbir mi ndax bari us samawati wal arda wa iza qada amran fa ma yaqulu lahu kun fa mom yalla wax na ci téeréem bob ne mom moy aji sos ji asamaan ak suuf te bu namay def dara mom yalla du def lulul nek kun nekkal wala amal fa yakun loolu nekk mu am kon mom kesse la gëm ne mo ñu meuna muccel ci mbir mi donc mom rek lañu wara ñaan waye ñaan gi nak dafa am ay préalable préalable moy il faut que ñu sabablu sabablu bi nag si kaa bii mooy nañu sàmmoonte ak ponki laab nañu fexe ba góorgóorlu si laab googu ndax hygiène du moo ñu ko jàngal waaye l'islam moo ñu ko njëkk a jàngal comme ni ma ko waxee si laaya jii mu njëkk a wax waaye xadiis it jàngal nañu ko si xadiis bu tukkee wax ne an nazaafatu min al iman mu wax ne set bokk na si gëm yàlla kon nañu sàmmoonteex ponki set yooyu ñu fexe góor góorlu ba kuy génn sa kër na nga fexe bu dee manul ñàkk nga génn sa kër boo demee bay génn na nga raxas say loxo waaye boo demee ba war a sa kër itam na nga fexe ba raxas say loxo si li ñuy wax gel hydroalcoolique boobu nga fexe itam ba bu dee man nga jël masque teg ko si sa gémmiñ mu fàtt sa gémmiñ ak sa bakken ndax nee nañu voie yi nga xam te ne fa la feebar boobu di jaar pour dugg nit ñi si bët yi la wala si bakken wala nga jël sa sa nga jël virus bi sa loxo dugal sa loxo sa gémmiñ mu wàll la donc nañu fegu si côté boobu noonu ba pare nag ñaan yàlla mu muccal ñu si te defe naa ne itam li tax ñu war a mën a nangu ni ku ne mën nga toog sa kër appelé mooy il faut ñu jéem a xam ki woote ki nga xam te moo célébré appel lu ko ko célébré loo ndax Seydina Issa mooy premier xalifa Seydina moom la bàyyi Laay waxoon ne li muy woote bu dee matul moom Seydina Issa moo koy mottali donc ginnaaw Baye Laay si ba si Seydina Issa kese lañ séntu woon nit koo xamante ne war na yeesal wala war na changer wala war na indi lu bees si biir kër gi te pourtant moom Seydina Issa Rohou laay andiwul woon benn changement célébré appel ndax du woon cëram bi mu fi jógee xalifa bu baax ba Seydina Mandione Laye di rakam toog na ci xilaafa musul màggal woote boobu ndax du woon mbiram rakkam ju ñuy wax Seydi Aboubacar ibnu Seydina Imaam al Mahdi xam ne ñëpp xam nañ may yekka yàlla mayoon itam ci jamonoom célébré appel ndax du woon cëram waaye bi yàlla dogalee tey woote bàyyi laay boobu di am téeméeri at xarnu bu bees di jeex xarnu bu bees di ubbeeku si la jital khalifam bobu ñettelu khalifam di al mujaddid di ki nga xamante ne moom la yàlla dogal mu yeesal wooteb seen alimaamu yeesal mbir islam mom Baye Seydi ciow mom c'est la woot c'est la magale wote bobu te la ka jitu moy ba mu toge khilafa 1971 dafa wax ne man sayna day xawma ma kañ laa fi jóge wuy ji sama borom waye bala ma dem wuy ji sama borom dinaa fexe ba àdduna gépp xam kan mooy sama maam limaamu ba àdduna gépp xam lan la sama maam limaamu woote donc defe naa kon moom li tax mu doon célébré après moo doon fexe ba téeméeri at yi bi mu jàllee kenn na bañ a fàtte bàyyi laay kenn na bañ a am lay wu toll ni ni yëgu ma ne bàyyi laay woote na wala yëgu ma ne am na ko woote yeneen te loolu moo taxoon mu fàttali ko nit ñi tey nag on a l'occasion l'occasion mooy tey donte appel amul gis ngeen semaine yëpp média yaa ngi wax appel appel ndax dina am ndax du am ku nekk ku xamuloon luy appel sax tey xam nga luy appel ku xamuloon ku seen alimaamu tey xam nga ku seen alimaamu ndax célébration bi nga xam te ne tey tombé na ak lii di et puis pandémie mondiale bii di coronavirus bi donc ñuy wax ne kon basir thiow damay wax ni mission accomplir na kon ndax ba mu waxee loolu 1971 toog ba 81 si téeméeri at yi woote ba mu daal di màggal woote Baye Laye ba àdduna gépp xam seen alimaamu defe naa ne kon accomplir na la mu bëggoon moom bu fa yemoon si 81 googu rek sax c' est déjà lu doy lu suffisant

lu métti lay doon si xolu jaam bi waaye ñu nangu rek ne yàlla moom jaam bi ay dogal ay ay bëgg-bëggam la am mais dogal yàllaay ki ka moom te moo dogal mbir mi am ñu muñ ko rek ñëpp ñu massawu leen coono ndax defe naa naqar bu si taalibe yi mën a am ñun taalibe yi naqar bu ñu mën a am sunu kilifa yi jël décision yi ñoo ñu si gën a am naqar si changé gi ñu changé format bi ñuy célébrer appel bi ñu lu ñu lu ñu am lu ñu métti benn ñoom métti na leen fukk ndax ñoom la yàlla dénk mission bi ñu koy euh, wesaare si ginnaaw sunu sang sunu xalifa sunu yaakaar Seydina El Hadj Abdoulaye Thiaw ñu koy nuyu au passage di ko ziar di ñaan yàlla sàmmal ñu ko yàlla aaral ñu ko yàlla guddal fanam te yokk wéram donc di lancé waat après rek euh, taalibe yi si ñu gën a góorgóorlu si muñ nangu dogal bi xam ne yàlla moom lépp lu mu def dafa fekk ne mooy li gën si ay jaamam ñu muñee ko noonu ku si bu bés baa na nga sol sa yére yu rafet comme naka Chérif Ousseynou laay daan waxee nañu sañse yére yu rafet ñu tuub dellu si yàlla ñu tudd turu yàlla waaye nag nañu def ay ay xéewlu si kër yi ku ne na nga togg say xewlu nga xéewlu ñu xool ñu néew doole ñu sëdd bokk ak ñoom lañuy la nga xam ne dañ ko togg si ay euh, ber neex leneen ñu mën ko bokk ak ñi ñàkk ndax si bés bi war nañ si di fàttaliku ñi nga xam te ne bàyyi laay mosu leen fàtte lu mu mos am bokk na ak ñoom toog lu mu mos am jox na leen ko toog ñu fàttaliku leen si bés boobu nañu sañse ak sunuy njaboot nañu célébrer appel bi sunuy kër nañu tudd yàlla nañu tuub dellu si yàlla waaye nañu saraxe itam te ñaan yàlla xalifa boobu xam ne moom moo ñu jox occasion bu ñuy fàttalikoo wote Baye Laye boobu muy Baye Sëri Thiaw ñu ñaan yàlla na yàlla barkeel liggéeyam yàlla na yàlla ful yoolu taxawaay bi nga xam ne na ko si kër Seydina Limaamu gi si yeesal gi nga xam ne yeesal na ko ndax euh, ku si amoon taxawaay la appel bi jëraloon na ko lu ne wax na ak Baye Mbaw Baye Mbaw ne ko euh, fu ñuy jëlee luñ ko célébré mu ne moom bu soxlaa mu jaay alalam dina ko def yàlla dafa mel dafa dégg waxam jooju ndax bu ñu defee première célébration appel ba année sa topp dafa am benn année boo xamante ne taalibe yi dañu yéex indi cotisation yi la indi cotisation néew lool par rapport ak dañ doon séntu keroog moom Baye Seydi Thiaw dafa woowaat képp kuy rakkam woo képp kuy muqaddam woo képp kuy mag si diine ji ak képp kuy représentant xalif ñu fekk këram mu toog ak ñoom keroog daf leen ne boo leen gisee man Seydina may woote ngir taalibe yi def seen alal si màggal gi may màggal sama woote maam bii séntuwuma si lenn lu dul ku si ne si yéen man see barkelu ndax barkelu boobu gën si barkelu da ngeen si faggu ak yool lool la bëggoon bokka ak na waaye man sëy ak ñima andal kesse kese muy ay talibem bi mi wax nak ay talibem yi dul nit lay wax mu ne ñun kese ne ñu magal appel bi keroog la yeleb loxom ak kalam xaalis bo xam kenn nu mu toll taxaw si kanamam sama maangi ngi sama baye El sina Sala job, donon ingénieur polytechnicien daf ma wax na man man scientifique la pour nit wax ma dara ma gëm damay gis preuve yu ma ko mën a lu palpable man ka démontrer pour mëna nangu mune buma démé ba nangu nek talibé nit tak sama ndigg di def tanki nen diko ko topp fu ne dafa fekk nit ko daf ma wan luma yem lu tax ma top ko mune ma te jikko yi ñi top ak nit sama wane woon na ko waaye it batin buah xamantene def na keman taay sama kanam ma gis kéemaan yo xamantene bokk na sa kéemaan yi nga xamantene mom lañu daan Euh, nettali ne ay yonent def nañu ko keroog bàyyi si caw yëlëb na xaalis si kanamu nit ñi teg la si kanamam loo xam ne ay dizaine wala ay centaine de millions la si nag ay devises yu uute ndax keroog ña ko fekkee nañu keroog gis nañ fa ay franc français gis nañ fa ay ay ay CFA gis nañ fa ay dalasi gis nañ fa dollar lu ne gis nañ ko si xeetu xaalis kenn xamul fu mu ko jëlee waaye daal yëlëb na daal jekki ba si yàgg ñu gis teg la xaalis si kanamam keroog année boobu dafa delloowaat taalibe la ñu cotisé daal di ne moom si Baye Sidi Thiaw financé appel ba tey jii nii mag ñi nettali ne appel boobu mooy appel bi gën a neex si appel yi ñu célébré si jamonoom ndax keroog lépp mat na lépp a doy na nit ñi appel nañ ay fan ba jël teraanga ya mu indi woon sax jël yóbbu seeni kër keroog wan na nit ñi ne moom kese mënoon na célébré appel bi waaye dafa bëgg ko ne nga dugal sa dërëm nga barkeelu kon xam naa ne kàddu gi xaw na gudd te warul woon yegg fii yëpp xëy na nag xëru kiy wax mooy wax waaye rek ñu jàpp ne kiy wax ab eh, jaam yàlla la di ab taalibe buy wax si ay sangam ak taxawaay yi nga am nañ ko si diine ji ndax bi bàyyi coow weesoo euh, bi mu génnee àdduna 1987 mission boobu mu samp muy ab woote bii di appel bii ay rakam continué nañ ko si ginnaawam bu ma nee ay rakam nag ku si mel ni sunu maam si li na maam Alassane bii nga xam ne mooy ñeenteelu xalifa bi amoon na si it taxawaay bu am solo si jamonoom euh, bi mu fa jógee it rakam ju baax jii di Seydina El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye al xalifa def na si itam taxawaay yu am solo ndax moom la ñu dénkoon kàddu moom moo doon diriger liggéey yooyu yëpp si ndigalu ay kilifaam yooyu xam ne ñoo sos mbir mi muy bàyyi Seydi Thiaw donc euh, ñuy ñaan bu baax euh, ñi nga xamante ne bokkoon nañ si ñu doon taxaw appel bi ku si mel ni sunu maam Chérif Ousseynou Laye ak euh, njaboot ga jiitu yàlla fulal leen seen yool itam si barkeb seen alimaamu alayhi salaatu wasalaam di wax wa axiru da'waahum alhamdulillahi rabbil alamin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin